al madina travel salum jidda sen info international ak tarixa in america si njiital suñu imam muhammad muntaha sakho ñoo may émission bu mag bii di seen diine audu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 wala xawla wala quwwata illa billahi alaliyi alazim jotaayu fiq ñuy ci àndaat ak ci ndimbalu Islamic Cultural Foundation of America fii ci masjidul muhajirina wal ci Staten Island New York di fekk ku nekk ci yéen ci guddi ajuma gu tedd gile di leen jox loxo di leen ziyaara te di sàkku ci yéen ñaan te di ñaan sama boroom saan góor gi Abdoul Aziz Touré bu ne saa borom da foog ne moom moom moom rekk ko moom ndeysaan yal na yàlla dëgëral taxawaayam ñuy ñaan suñu borom mu boole leen ñun ñëpp defaral ñu suñu zaahir ak suñu baatin ci àdduna ak ci àllaaxira jàngoon nañu xeeti laab ñu waxoon ne mooy laab ci sobe ak laab ci toj laab ci toj ñu jàngoon détail ya ni jàngewoon woon détailu laab ci sobe waaye toj ci boppam ñaari xeet la toj gu mag ak toj gu ndaw wala bu la neexee nga ne tojle gu mag ak tojle gu ndaw neex na yoo xàmmee nag toj léegu mag mooy lépp luy waral sangu farata muy janaaba walla xayd wala nifaas janaaba mooy ku séq soxnaam wala borom këram lalu sëy walla sax jotuñoo sëy waaye yi jiitu sëy muy bànneexu moo xam ci jonjoo la walla ci anam bu ñu ko mën a defee ba maniyu génn xoolay janaba xayd mooy li jigéen di gis weer wu nekk ñu di ko woowee mbërëg nifaas mooy deret yi nga xam ne moom la jigéen di gis jamono yu muy am doom yal yàlla suturaal jigéen ñépp ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu yépp dafa waral sangu moo tax ñu di ko tuddee toj gu mag toj gu ndaw walla tojle gu ndaw mooy lépp luy waral jàpp lu mel ni dem joor lu mel ni tuur ndox lu mel ni ngalawal yile nag bu dalee mukallaf bi am na yu ko lislaam tere mukallaf bi su fekkee dafa tojle toj gu ndaw am na yu mënuta def su fekkee dafa toj le toj gu mëg am na lu ko lislaam tere bi njëkk ci yi lislaam tere ki tojle toj gu ndaw maanaam ki njàpp war mooy laal alquran tegtal laa yamassuhu illa almutahharun suratul waaqia aya 79 alquran ji du ko laal lu dul way laab ya ci mbindeef am na ñu ne way ci malaayika yi waaye ñu ne loolu dafay jottali ko mbindeef yi bi dilalati bi dalalatil isharati nim kii mu rotee ci téere amr ibn hazm ba yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne alquran ji du ko laal illa tahir hadis jàng ci nasaa'i yu ak kudul nasaa'i yu ku mel ni imam malik sol na ko ci muwatta <clears throat> ibnu abdul barri ca tamhid wéral ko wax na sax moom ibnu abdul barri ne innahu ashbahu innahu ashbahu almutawatir wala ashbaha almutawatir innahu ashbahu almutawatir li talaqi nnaasi lahu bilqabul ibnu taymiyata rahmatullahi alayhi ne huwa madhabu l a'immati l arbaa tere laal alquran ku amul njàpp tere laal kaamil ku amul njàpp mu ne mooy ngërëm ilimaan yi ñeent laal kaamil bu tedd bi ku amulum njàpp du ko def ibnu hubayra ca ifsaax nee na ñeenti ilimaan yi daje nañ ci ne laa yajuuzu lil muxdisi massul musxafi aha waaye nag mën naa yenu kees goo xam ne am na kaamil fekk jubluwu ca loole loolu beneen detaay la boo xam ne bëgguñ caa dugg ak yéen ndax dafay guddal jotaay bi bu fekkee dafa yore téléphone bu yore alquran mën na caa liir waaw waaw mën na koo jàngit te fekk teewut kaamil ba naka noonu julli moo xam farata la wala naafila la ndax sama borom nee na yaa ayyuha alladina amanu ida qumtumu ida qumtumu ila lsolati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsaxuu bi ru'uusikum wa arjulakum ila alkaabayni yaa ayuha alladina aamanu ay yéen ñi gëm yàlla ida qumtumu ila lsolati fagsilu wujuhakum su ngeen nammee jóg jëm ci julli na ngeen raxas kanam yi seen kanam yi wa aydiyakumu ila almarafiqi ak loxo yi ba ci conc yi wamsaxu bi ruusikum masa bopp yi wa ar seeni bopp wa arjulakumu ila alkaabayni tànk yi seeni tànk ba ci tikk tikk njara yi wala doojoor yi waaw ba ci doojoor yi wa in kuntum junuban fattaharu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne laa yaqbalu llahu salatan bi gayri tahur laaye jëma njëkk a tudd mi ngi ci hadis ji yonentu sallallahu yàlla du nangu julli ko amul beneen hadis mu ne la yaqbalu llahu solatan man ahdatha man ahdatha hatta yatawadda yàlla du nangu julli ku toj le feeg jàpput hadis ju njëkk ji mi ngi ci muslim ci nasa yu ak ibnu maajata hadis ju mujj ngi ci buxaari yu kon ku amul njàpp mënta julli bu jullee it werut moo xam mu xam li muy def walla mu réeree ko mu tay ko wala mu fàtte ko su ko tayee nag julli ci lu dul njàpp am na bàkkaar bu réeréy warees na ko yar sax ku mel ni maalikiyatu yi ñoom dem nañ ba ne sax yéeféer la boo jàngee Abdurahmaan al-Axdari dina la wax loolu su fekkee dafa réeree wala mu fàtte nag du bàkkaar de waaye julli ga moom du wér na ko borom Ibnu Ashir waxee bi zikri wal qudrati fi gayri l axir waaw boo fàttee julli juum ci xibla bi boo sëlmalee soog a xam ne da juum ci xibla bi julli nga wér na su fekkee sobee ngi woon ci sa yére nga julli ba pare soog koo fàttaliku julli ga wér na su fekkee sa euh, yaram ci yi nga war a muur booy julli am na lu ca feeñ te yëgoo ko nga julli ba pare soog koo gis julli ga wér na waaye julli ba pare fàttaliku ne man ndekete amuma woon jàpp amoo bàkkaar de waaye da ngay bamtu julli ga bi dhikri wal qudrati fi gayri al axir nasiha wa ajizun tafriu nasiha wa ajizin kathir ndeysaan ñetteel ba ci yi nga xam ne ku amul njàpp du ko mën a def mooy at tawaafu bil ndax yonentu sallallahu alayhi wa sallam nee na at tawaafu bil beyti salaatun illa anna allaha abaxa fihi alkalaam wër bi julli la lu dul ne julli la goo xam ne yàlla daganal na ca wax yonent bi sallallahu alayhi wa ba mu nammee wët dafa jàpp alayhi salaatu wa salaam xadis jooju ma nga ca Buxaari ma nga ca Muslim <clears throat> yonent yi tere na ku amut maanaa ku am mbërëg mu wër kaaba gi ba ba muy laabee xadis jooje it mu ngi ci Buxaari mm-hmm. yàlla gannaaw ba ne yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu salata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun wala junuban illa aabiri sabilin xatta tagtasilu ndegam tere nañ ku amee yile mu julli tere nañ ko sax mu dugg eh, jàkka ku ñu tere nga dugg jàkka lañuy def ca biir jàkka kiy wër kaaba gi taxut ñuy wax boo defee ki nga xam ne nag moom dafa tojle tojle gu mag mooy ku sangu farata war tere nañ ko jàng alquran ndax xadisu ali ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam laa yaxjubuhu an alqurani sheyun laysa aljanaaba xadis jàng ci tirmidi mu waxaat moom tirmisi ci baatam ne yuqri'uuna alqur'ana ma lam yakun junuban mu ne aliyu nee na yonentu fa ñu daan jàngal alqur'an fiig mu amee janaba kon loolu mooy wane ne ku amee janaba jàng alqur'an xaraam na ci moom bu dee ki mbërëg wala ki gis deretu gësin nag li wér mooy lii lenn ci boroom xam-xam yi wax ne mën naa jàng alqur'an rawatina su fekkee dafa ragal a fàtte du ko laal nag waaye mën na ko jàng lii mooy madhabu malik riwaaya la tamit ci riwaaya ahmad yi euh, maanaa ci yiñ jëlee ci ahmad lu tax parce que diggante borom ba ak borom mbërëg taqale ba dafa biir ndax borom ba su ko neexee léegi ba ji jeex bu demee sangu ji rek mu jeex borom mbërëg nag du ne moom lay neex mu jeex dafay jël ay fan looloo tax boroom mbërëg mën na jàng alquran bu ñu xoolee ci suñu boroom xam-xami tey yi am na benn euh, kuréel gu mag a mag gu ñuy tuddee majmau fuqaha shariati bi Amerika conseil yu fiq bi nga xam ne moo nekk fii ci Amerika di def liggéey yu ama am solo ci biir àdduna bi def nañ daje bu réeré ca Montréal muy Montréal ca Canada ñu ngi ko defoon diggante 28 ba 31 octobre waaye di ci waxtaanee yu mel nii yi nga xam ne mooy xew ci jullit yi ci bitim réew maanaam ñi nekkul ci dëkku lislaam yi waxtaanee ci yu bëri waaye bañ paree jëluñu xaraar dañoo yónnee yëf yi xam-xam yi waroon a jógee yu waroon a ñëw fekkee si ko te amuñu woon visa ñu di ko càmbar bokk nañ ci yéen ca doon càmbar mooy jàngum alquran ci jigéen joo xam ne dafa yore mbërëk jàngum alquran ci jigéen joo xam ne dafa yore mbërëk ñu ne mën na koo def bu fekkee ne nag dafa nekk jigéen joo xam ne ab étudiant étudiante la walla élève la mën naa laal sax kaamil ba ñu jëlee loolu ci lan ci xalaatu imam malik bi nga xam ne daganal na jigéen juy jàng ak kuy jàngale mu laal kaamil ba riwaaya la ci ahmad ku mel ni ibnu taymiyata lëngal ko ñoom nag ñu proposé ne ñu ngi conseillé kooku mu sol gant walla yu mel noonu su fekkee ne dafay jànge ci kaamil ñu ne it tamit bu mënee am kaamil boo xam ne am na tafsir ngir mu génn ca wuute ba ñu boole ca yi ñu waxtaanee it mooy jigéen joo xam ne dafa amee mbërëg ñu tere ko mu dugg jàkk ñu ne waaye su fekkee ne la ko fa yóbbu mooy déglu conference walla jàng xam-xam te dana fexe ba sobey mbërëg ma du taq ca jàkka ja ngir ne jamono ji ñu toll loolu lu mën a ne ñu ne da loolu lu mën a ne ndax it am nañ ca tegtal ci riwaaya buñ jëlee ci imaam ahmad loolu la imaamul muzani eh, àndandoor imaam shafii ba wax loolu la daawuda wax loolu la ibnu hazm wax yooyu nag yu ama am solo la eh, yu jar di eh, seetaat ñoom it ñu def ca liggéey bu bu ama am solo yàlla na ñu leen yàlla fayal te lépp ñu teg ko ci njubal yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam gis nga ki nga xam ne dafa ame euh, euh, mbërëg ñu ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam tere na ku ame mbërëg ak ame amee janaba ñu sax ci jàkka ja ndax yàlla nee na wala junuban illa abiri sabilin hadis jene laa uxillu almasjida li junubin wala xaidin waaye boroom xam-xam yi jëlee nañ ci mbooloo ci saxaaba yi ne bu fekkee ne kookule jàpp na mën naa sax ca jàkk ja xam nga ki amee mbërëg mu mën a gut a sangu ñu ne bu fekkee jàpp na nag jàpp la dafay woyafal toj ga naka noonu ki amee janabat euh, mënagul a sangu bu jàppee it mën naa sax ca jàkk ja ci waxi lenn ci boroom xam-xam yi kon nag yiñ tere borom toj gu mag mooy jàng alquran mooy julli euh, julli tere woon nañ ko borom toj gu ndawit waaye borom toj gu mag dañ ko koy tere plus ya ñu tere woon maanaam lépp lu wax ne tere nañ ko borom toj gu ndaw tere nañ ko borom toj gu mag li ñuy yokk ci liñ tere borom toj gu mag mooy euh, jàng alquran ak sax ci jàkka ak sette maanaam ànd ak sette yi nga xam ne ñoom lañu ñu mooy exception yi nga xam ne ñoom lañ leen indil mooy bu fekkee borom bërëg la mën a jàngal Qur'an bu fekkee tamit ne borom dafa jàpp mën na sax ci euh, jàkka ja euh, borom mbërëg rawatina koo xam ne étudiant la étudiante la kooku moom non seulement mën na ko jàng waaye mën na yore téere ba ah waxtu waa ngi gudd eh, suwete wuñu ko nii wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama assalaamu aleykum wa rahmatullah